suñ borom ne seen doom yi ngeen di tol to toftaloo ba ma koy bind fekku leen ko yaa ngi bureau ba wala atelier ba mbaa yaa ngay nelaw lu ma neex def ci te kat fi sulumatin salaasin saalikum laaw rëbëkum yàlla ngi bind nit ci ñetti lëndëm mais bi nit génnee dafa mel yàlla nga ko doon bind bëccëg yor compas sa yéen yi ëppul bii xef yi ëppul bii ñaari paxi bakkan yee yem nopp yi kor kor di fi war a xóot daf ko xóotal xeet ko ba mu jekk baaraam yi mu rëdd ko ci biir ak lëndëm ci lëndëm ci lëndëm mu génn mel ni ah lëndëmi guddi gi lëndëmi biir ndaw si lëndëmi li ñuy wax mishmash mishmash si lañuy denc gune ci gune bi mu ne maa liggéey liggéey bi sarafat te maa ngi ko lëndëmi maa ngi ko liggéey ci ñetti lëndëm boo doon bind rek lampe bi fay nga téye sa loxo mbaa nga wàccar ligne bi mu topp toll ci ñetti ci ñetti lëndëm nga judd mel sa melokaan bi ah dama defoon da nga ñibbi nday ber ci jóob sama doom defal li ngeen bëgg a defal liggéey yoon liggéey xale bi juddu na nag ñett ku ne ñetti temps la am am na nag quatrième quatrième bi booy bu tudde ko marche arrière Saliou xam nga ban ak ban la bàyyi leen ma yor ko boo fi jógee xam nga lu ciy tegu yor leen ma yor la leen xam nga bu ciy tegu yoral sa bopp ma yor la la xam nga bu ciy tegu bàyyeekul ñu bàyyi la ma yoraat la maa jëkkewul may mujj président bàyyi leen ma yor ko mooy ci biir ji ci ci liir bi ci biiri ndeyam yàlla ne bët jotiwu fa tànk jotiwu fa dinaa fexe ba naaj du ko tànk sooy taw te yaay tooy du tooy du xiif lu yàgg-yàgg du mar dina tuur tànk dina tuur dina gën a tànk nag doo ko xàmmee dina tuur ndox doo ko xàmmee rikk waay toog leen ma yor ko bàyyi leen ma yor ko bàyyi leen ma yor ko maa ko mën a yor maa fa joti maa fa xam di wëlbati nag xale bi kat boo déggee ñu naan boo déggee ñu naan jigéeni biir yi dina ruy la bëgg xale baa bëgg ruy ci biiram waaw suñ boroom a ko wax mu ne wa ulqi fi qalbihi kullu ma tastah bu yaa ji ne daal tey man sama xel day tey dama bëggoon sombi gos baa bëgg sombi te mënu la wax te ci lekk kii lay lekk commandement yaa ji ëmb mu ngay jóge ca gos ba ci biir ci ilhamul ilahi tabaraka wa taala mu téye ko rek bu kenn ñëw man maa maa ko mën a yor maa ko mën a yor di nga juddu ba am weer a fukki fan sérieux tay ma sa yaay di ko tuur mooy dara jooju la topp moo ko nekk ci biir jigéen mën a gulaa am métier mën a gulaa wax fàtte wuñ laa fàtte fàtte ba ba ngay toog sa nga am desit boo ñëwee ci groupe bi dañ la fàtte waaw ku xamoon fi yëf yi jóge xam ki koy joxe kan doo géeroo doo gaawtu boo tegoon sa bët fi jal bi ne di ñëw ñun ñooy jeex te du jeex nga xam ki koy joxe kan nga xam ne dafa mànd gis nga ne naa gars yi bàyyi leen xëccu xëccu baaxul ku ne fi nga yem tey gën ci yow bu déplacé passé yàlla defal la ko yàllaa la bëgg yàllaa la moom tey nit du bañ aleelam yàlla may ma nangam yàlla may ma nangam yàlla may ma nangam yàlla may ma nangam mu mu rey nit ñi bàyyi la si ci suba si nga nekk yàlla may ma nangam mu rey fukk bàyyi la si ci suba si yàlla may ma nangam yàlla may ma nangam xam nga da muy def ramasser celui-là imam rek tee nañu bu yàgg kuy dund rek am nga ci billahi ñi ci bokkul dee nañu ba dem frigidaire yi tey yi ñii dund ko naan jën yi teer bi di jariñ ñoo ko añe li dee tey ci bétuwaar noo ko reere ku amatul wàlla dem waaye ku fi def sa wàlla nga fi te yàlla du la fàtte gore leen te tey moo yëgoo woon ak waa ji duma arrêté fii dama doon demi ba rang-rang ji jeex ma door a taxaw waaye oto bu am ëllëg soo ko arrêté ci rang-rang balaa départ day amaat aliram tey metti bu ñu xaaroon a xaar de dareet ñu kii waaye ma wax leen ñett yi boog te dog loolu ma doon wax nu dem ci jàng yi de le 31 le 31 nañ ko defe woon at yi passé fañ ko daan defe ne lañ ko nar a defe it président wax na ci nu mu daan mel nag bu soobee yàlla walaay ma tur ci sol duuba la mel lay mel ren ndax su amati jaana mel noonu le 28 lay ubbi 29 30 ñu noppaliku 31 ñu tëj ko tëjaale ko garaate maamam mi ko tëbbi garaat ba mu nekk sangi lawliyaa yi kama ana jëdduhu huwa sayyidul anbiya Cheikh Ahmad Tidiane Chérif kibrit laxnar la ko gaa yi tuddee woon mooy almete passe partout foo ko xos mu tàkk tur tur la ci turam ñi jàng xam nañ ko ki su la arab yi nag kibritul ahmar cheikh la ñuy wax góor googu nga xam ne almeti passe partout la soo ko xoosee ci lu tooy mu tàkk nga xoos ko ci lu wow mu tàkk nga xoos ko ci poson mu tàkk nga xoos ko ci bant mu tàkk nga xoos ko ci weñ mu tàkk loolu garaat booba tax mu daan wax mu xadam yi ku ñëw bokk bitéeli sàngara dajj ki ci sa kanam naan ko mu jeex mu sànni ko tàllal loxo ne la may ma wér jox ko ko te jóg suma digganteeg moom 31 ca place ba ci la ñuy wàcceekoo seydil wujudi wa alimi suhudi ibn abdallahi mohammed sallallahu alayhi wa sallam lu waay jàpp bàyyi ko te fekk ko bu ngànt amul wala nga fekk ko ci yéen yéen ñii di tant tant yi di ak ñi mel ni yéen wasifakat yi jullikat yi xasidakat yi ñuy woy mada yi nga xam ne soiraaw yi nga xam ne awliyaaw laayi la ñu demee day ngebe ni góor gi ñuy waxtaani Maulana Ahmed Bamba ku ñuy wax Momadou Boussirou Xaadi Iyaal borom Safa ñi yéen ñii tasaare loolu ci réew mi ngeen dëkk ñi jiite réew ma buñ xamoon waloor bi ngeen leen di defal ak jàppal gi ngeen leen di jàppal di ngeen am billahi mandat boo xam ne parce que am sàq xam nga sàq sàq am xamu leen ko dencukaayu dugub la ci ñun béykat yi mais doomi doomi doomi réew tubaab xamu ko ñoom cinq kilo la ñu xam xamuñu sàq mais sàq mooy cinq kilo fële ci ñun dañu ñoŋal nag la ca ne rabb ko rabb bu gudd utal ko jànk bu kenn dul mën a yëkkati suñ jëlee lu ñu soxla bàyyi ko mu daanu ma ne ki ñëw bëgg a jël ci dugub ji di toggi te amul ku ko caral jànk jànk bi car mooy yëkkati ko ba mu ko we nga sës ko pour nit mën cee dugg ki ka ka caral ba mu dugg tubba dugubam génn mu daaneelal ko bant bi koo xalaanee su soqee bool ba tey war naa may waajooju ab dàng ab dàng bu ko oogu weer sax naka may ab dàng boog xam nga luy jànk bi asamaan yi juróom-ñaar xam nga lu ko car ah li teel asamaan fekk sunu xamu leen ko de mooy ndog yi ñii sujjóot di siggi bu ne jëy kenn sujjóot bu siggee rek doole sujjóot yi koy tagalaan waaw jànk bi bu këppoo kenn dina tibb dugub asamaan bu daan woon suuf dinañu faale gouvernement dinañu faale daara dinañu faale école kon ñi car sàq bi ñi ciy dugg di tibb waay waay nañuy may gars yi ay dang buñ leen owul reer sax nañ leen may dang yan leen fi yàlla yàggal door ma ci rasulullah foo gis mu liggéey rek arafa waxeef ci kawam dalal xel ña muy wax a tax waaye dara waru ko léeg-léeg nag ma fa ba taklif teg loo xam taklif mooy warugar wala war yàlla dara waru ko mais ci arab léeg-léeg nga gis foo xam ne day liggéey arafu wareef lu tax mu di ko def toujours dalal xel yi ka muy waxal pour mu gën a gëm nga dara waru ko ak duggee lu tegu ci maamin daabatin fil ardi alaa jooju lan la arafu taklif la lu tax mu dóor ko fi nit dafa gëm nit dafa nit dafa fonk ko wërsëg dafa fonk ko wërsëg ba lu mu la gëm-gëm boo ko ne suba ma may la cinquante mille balaa xel mee dal mu téye ko xamul sax ci yow yi fen waaye cinquante yi ci moom ba mu defee rek c'est c'est pas vrai mu ne maa min daaba fi aar ilaa alalaay fab waxul ilaa lilahi ilaa la indalaay waxu ko ilaa alalaay ala arfu taklif la ala ha si ku ne arafu jaar la buñ songee baas te du la maa laa indi sirif nekkul jaam it dañ koy dóor ci suuf ak masque waaye bokkuñu nag liggéey xanaa bokkul ak si bokkul ak ah ah xan ku ne jaar la waaye li ñu jar bokkul xan toujours séparé tax mu jóg si toujours dugg ci biir a tax xalaa war ca kaw a tax war ca kaw dugg ci biir séparé ma indi la benn moom boole la ñetti ala araf yooyu nga gis seen prix sabro bi ñuy wax muñ soo ko jëmee ci topp yàlla xam nga nooy wax sapru ala taati topp yàlla ba nat ko war ko dootoo ko yëg sapru soo ko jëmee ci musibati fayadul ngay lampa ngay remplace ngay liggéey employé ak sapru fi musibati muñ ci digg musiba ba bul bul yuuxu bul yuuxoo yuuxu ba sa baat dee nga doon ne damay muñ ba mu neen jël ngay commencé muñ ah nag sapru an maxsiyati muñ ba séparé mooy yàlla su dee marché am ngay liggéey su dee balaa fii ngay liggéey bu dee taa ala ngay liggéey yàlla ne maa min daaba amul dara loo xam ne dina dukkat ci kaw suuf wala taayir yataaru bi jana bi janaihi ila amsal fële amsalukum ci lan ci dañ leen moom ci lan dañ leen di rey ci lan du ngeen béy ci lu leen neex waaye maa min daabatin fi l ardi ila ala laay risqa risque je tax mu dugal alaaji pour seen xel dal def leen ndànk amul koy dox ci suuf ku ma fàtte maa yor wërsëg yëpp xam nga nit ñi def nañu affaire bu rëy sama xarit dañ safaani ñaar dafa am lu yàlla wax ñu ne du noonu daf am dafa am dafa am lu mu wax ne nii la ñu ne du noonu am lu mu ne du noonu ñu ne nii la safaani am na ci wàllu àddina dañ daf leen ndànk soxlawul jàngi maçon soxlawul jàngi menuisier soxlawul def commerce ku nel sa wërsëg la fi jiitu junney at sëru door a am sa jës mu door a am ñu ne loolu wóorul loolu wóorul ah ñu jàngi maçon ñu jàngi menuisier ñu defar montor ñu ñaw ñu oh yow oh non ma min taabatin fi aar ilaa laa risqa ñu ne non nga foofu ne ne nii la ñu ne du noonu àjjana nag mu ne kenn bi ci dugg te liggéeyoo ñu ne ñun ñëpp àjjana la ñu jëm àjjana abul nawaas daf ne yàlla day aka neexoon mu gàddul nu àllaaxira te bàyyi àddina ñu toppatoo suñu bopp waaye àddina rek la nu gàddul ne àllaaxira yéen a koy wut aka neexoon mu gàddul nu àllaaxira te bàyyi noog àddina nu kuskusi bu ko defoon subaan bi mu gën waaye àllaaxira àddina tëdd leen yaafus dina ëpp aleel ku njaxlaf gis naa ko ñuy rob lépp lu ñu sànget baayam biñ daan taam ñaari weer ñu di ko di soxla gis naa ko baayam bàyyi ay million biñ laa taam ñaari weer ñu di ko yërëm tasarrufaat yi bayna yaday mawla u yatasarrafu kayfa yasha anna yasha mata yasha addinaa ngi ku tëddoo nit ma jox la ko alaxiraa ngi ut koy tax ngeen am ko nit ut na ko ba tay sax te amu ko bilaay boobu ñu jéem a dugg ci jàng yi li ci des wërsëg gi ñi fi des la ngeen dinu dimbale ci waxukaay bi bu ngeen ko wàññee ba mu ëpp du baax ci tëdd yépp benn waxu sa ci woon ma ne li ci des ñi fi des ñoo koy muuroo doonte tiyaaba bi dina ndax watatu sax fekk ñi dem waxuma sax ñi dem mais ak ñi ñëwul woon sun borom dara waru ko ci kenn nag jëfanteel ku mu doon bi max di fadlihi wa karami rek la xale bi tudd sax bala maa sori ma Cheikh Mbaye yàlla na ko yàlla wuutalal moo yeewee ku moo fi joxe addiye bii
alaji seexu mbaay rek
suñ borom dara waru ko ci kenn loo am am daraja bul gëlëm mukk ba defe ne yàlla li mu defen teeg diw lépp a tax man la maa da sax lu xew téere yi ci nit bul jéem a gëstu pour foog li tax mu am ko du taxeen du mën-mënam du woyefam bi max di fadalihi baaxaayu boppam rek la kenn defalu ko dara lu tax mu defal la dara ku mu defal dara ku mu doon ci daraam yu bari yi coobare boppam la kon nag bul bul bul complexe am na gaa yu fi ne ñoo xam bi wóor na ma wóoral yàlla ne li nit di bëgg bëgg boppam teg ñu fi ne laa wax ñoo xam ne li nit di bëgg bëgg boppam ñeme ñoo wax yàlla may ma milliard ñeme ñu ñu ko lu tax yaay kan ak yàllaay kan ba ñu meññoo koo ñaan milliard jombale ko sa bopp yaa ci dee waaw ndab loo ko taaj rek moom la lay defal borom milliard yëpp defaluñ ko dara defaluñ ko dara loo ko defal ci coobareem rek la bi maa di fàddalihi attaque ko makke sax sayyidul wujudi wa alimi suud daana wax ne lan yadxul al jannata ahadukum bi amali ñu ne ko walaw anta ya rasulallah walaw mu ne walaw ana in lam taqaddumini rabbi bi rahma amul kenn kuy dem àjjana ci jëf kenn kenn tout le monde ñu ne ko yow sax ñu so- ya rasulallah mu ne man sax su ma yàlla kulóorul ci li may kur kuré gi yërmandeem du ma arrivé
cay
tawal leen ko loxo te dogu ne dina nangu Muhammad a wax ne addu'u rabbakum muqinina bil ijaba ñaan leen yàlla te dogu ne nangu na bu leen sikki sàkk imaanan raasiq da nga am da nga am da ngay am dogu gëm gu wér dogu gu dog tab Cheikh Ahmad Tidiane Chérif fii daan na wax ne décider leen ci li ngeen bëgg décider li nga bëgg sa yoon ci ni ma koy amee sa yoon ci noo koy amee décider li nga bëgg sama taalibe ne décider li mu bëgg doonte gannaaw aras la mais yoonam bu mu ne ci fu may jaar ba am kooku na may def ba am ko waaw kañ dara war ko ci kenn li àddina yaar yaar ñaara ko dëkk kii defu ko dara kii defalu ko dara waaye daf ne kenn ki ilifal kenn ki moo ko nañ la ilif ki mu ne ilifal defalu ko lu tax mu ne ko ilifal ki mu ne nañ ko ilif defu ko lu tax ñu ne ko mu ne ko nañ la ilif def baaxul def boo ko déggee ci wolof lu bon la defal a baax defal ñetti leetar la del faa lamara def ñaari leetar rek la def ni mu gàtte la bone lu tax kenn mënu laa jubaleeg Mansour Cissé nga ne xamula lim ma def lu tax kenn mënu laa tàggaleeg Moustapha Cissé nga ne xamula lim ma defal ki yàlla ne demal nekk patron defalul yàlla dara ki mu ne ko allé si nekk subordonné defu ko dara dafa doxal ci coobareem rek waaye nag commande la xam nga na mu def biñ siggee di cër jël seen cër dafa am lu mu ci sànni ku ne yëkkati wàlle ko mun la ko mun la ko dindi cëri ki ñu war a ilif def ci def ragal su booxun surga bu ñemeñ su booxun jigéen ju njàmbaare ku ñu war a ilif day ragal mu sànni ci kilif téef ki war a ilif yërmandi su booxun patron bu soxor ku jiitu dafa war a yërëm ma foofu yërmande def ko ci xol kii ilif fab ragal def ko ci xol ki ñuy ilif di ko surveiller boppam nag du yónnee bu njëlee mu ngay jar ci patron xool xol bi bu fekkee yërmande na mu meloon mu dem atelier ba wala bureau ba ku ne mu yokk la ragal loo santaane ñu def loo tere ñu bàyyi koo aw muyu koo tëkku mu tiim allah
mu surveiller rek nag waaye bés boo nee bu subaa gaa yi xam ne maa leen gën a saay saay rocc yërmande teg ci suuf yàlla yër la ca fajar bi nga laata dem bureau bi fekk yërmande nga teg ci suuf day dal di daw atelier ba ndaw bureau ba ku ne mu rocc ragal boo ne jaleñ koo oo mu tànkam lu loo santaane ñu bañ koo gëdd mu siisu boo ñëññee ba song ko nag yàlla teq say tànk te yàlla xajul ciy tànk te ku su sugga daan nga rus soo déggee patron naan c'est du allez voici nous sommes pas pas à la caisse mu ne qu'importe parce que da nga or yàlla rocc yërmande mu ne mu dem ci waaja rocc ragal ba mu set nga réglé ko mu dem am quatre mois ñu licencié la mu jiitu la ci boîte nga fekk ko fa doon deuxième surgaam muy feeku la ko doon def te wa yowma zalimi ala al maslumi ajadu min yowmi al maslumi ala salim téere yi ne nañu bés bi kiñ doon noggatu di fayu bés bi muy fayu mooy gën a métti bés dañ koy noggatu wa yowma al maslumi ala zalimi ajadu min yowmi zalimi ala al maslum ma dem yàlla dara waru ko waaye warlul na boppam ñett mu warlul ko ñett yett ya mu warlu lu ne baax na ci ñett ñi mu ko warlul defe naa ci ngeen yàlla nee na ku ma sant ma dolli la cant yàlla rawul lii cant du ci làmmiñ ci koppar ci jëf ci temps fab sa ko fab sa xaalis cotisé ko fab sa temps sacrifié ko guddik lëm fab sa doole tante ko loolu cant rawu ko te la in shakartum la azidannakum xam nga lu tax la in shakartum xam nga lu tax laam nga posté ci mooy teg teg gi teg teg gi lay firi boo may sant ci saasi ci saasi ci saasi laa lay dolli ci saasi du ma xar ëllëg léeg-léeg sax am benn dof bu daloo mbubu ne alhamdulilahi rabbil alamina toog mbubu bi te yokk mu ne dañ doon ko sant rek yàlla doole la te man sant naa et puis nga am cent franc ne alhamdulilah rabbil alamin di seen tu yeneen seen tu gisuloo dara comment ñu noon ko sant yàlla doole la man wax naa alhamdulilah cent franc doole ko doole nañ la dooma laaj ci fan am déet cent franc yi mënu woon a rot mënoon nañ koo sàcc mënuñ ko woon a sàcc mënoon ngaa dee ñu doon na ko kon dolli nañ la waay ndeysaan dinaa di def ñaari bu may tukki bay ñibbisi li yonent bi wax nee na loolu dara aya aya aya aya loo may xoole xam nga ne yow. te boo reeree bay tëdd sa gaas wetar jàngal fàllaxi ak naasi nga ne yàlla wet gi maa ngi koy tëral su bokki ci war a jëkk ëllëg yàlla na jógali limaan su su dee ci ñi ramassé nag ci guddi gi mu dem na yàlla na yóbbaale lislaam noonu la julli di tëddee waaye doo reer ba rekk rek sala weesal na bàpp allahuma inni waddaxtuha sajjan bi fa in kaana mima yuqasu faqasku billiman wa in kaana mima yursal farsalha bilislami wal ihsan dooru tëdd soo boobalee am na loo war a wax soo ñëndoo am na loo war a wax soo tuselee am na loo war a wax booy lekk am na loo war a wax soo jógee am na loo war a wax boo dawoo am na loo war a wax booy sol am na loo war a wax booy sumi am na loo war a wax booy taal am na loo war a wax booy fay am na loo war a wax dara dara dara dara damay def bu ma tukkee bay bay bay- bay ñibbi si ndeysaan ni ma def barki démb di defar sama walis du ma nangu kenn defaral ma ko ma ne ko yàlla yàlla bu ma ko kenn yebbil waaw nit yeb na ba taay ñu yebbil ko ko maa ngi nii di ñibbi rek waaye bu ma kenn yebbil sama walis wi naa ko yebbil sama bopp ah wax naa dëgg de te gars yi dama sori sax waaye waxuma yeb yeb waxuma yeb walis ni yebbil la ko waaye sax ni takk na tubéy ñu tekkil ko ko billaay tekki leen monteur bi dindil musóor bi sumil sumil dàll yi am na ba tey la yastatihuuna tawsiyatan wala ila alim yarjiuna dafa bari doole du laaj ndimbal bu songee rek mu sotti dara waru ko waaye warlu na boppam ñett ci ñett yett yi mu warlu yu am solo la ñett ñi mu ko warlu yaakaar naa ne ci ngeen demoon naa ci benn bi sant leen ma ma dolli góor gu baax daan na wax ne ñaari wax yi day alxuraan daf ko dendale waaye taamu naa benn bi adawoo nistajib lëkkum ak la in shakartum la azidannakum ñaan leen ma ma may leen ak sant leen ma dolli mu ne sant leen ma dollee gën a dal sama xel ndax ñaan leen ma ma may leen loo ci góobe gar gàcc ñaan leen ma may la loo ci góobe gar yaa ko ñaan mu ne mu ngi ci biir waaye li nga gis ba kontaan ba sant loolu neex na la buñ la ko dollee nga jël am déet góor gu baax daf ma ne fan bu gudd baax na de ma ne ko lu tax mu ne ci la lépp xëj ma ne ko dëgg la waaye ci la lépp xëj waaw moom daf ma ne fan bu gudd baax na de alaaji ma ne ko ah mu ne lu tax ma ne ko lu tax mu ne ci la lépp xëj ma ne ko waaw waaye ci la lépp it xëj bon ba mu yàgg nga baax a ngi ci baax ba mu yàgg it mu ngi ci benn ñaareel bi ne na ku ma tudd ma tudd uskurooni uskurkum uskurooni wala takafuroon fàttaliku leen ma bi ngeen amee su ngeen ñàkkee ma fàttaliku leen fàttaliku leen ma bi ngeen wéree su ngeen feebaree ma fàttaliku leen fàttaliku leen ma ci kaw suuf suñ leen suulee ma fàttaliku leen taxaw ci sama suuf si lekk sama sa wërsëg bi fàtte ma buñ la suulee ma fàtte fàttalu loolu du ma fàtte nag damay fàtte fàttalu alquran lu mu wax suratu taha laay bëgg a jàng wa man yaxrid an zikri fa inna lahu maisatan tankan wa naxsuruhu yowma alqiyama taxma qala rabbi lima shatani ahma وقد كنت بشيرا قال كذلك أتلك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجسي من أحرد عن آياتي تكت ولا أصاب الآخرة أسد وأبقى يلا نكو تنقم رسول أوتي nga fenentel fenentel fenentel lu dama la bàyyi de ndax dama gore fan yi ma noon ci ngay dund fa nga dund ko duma ko wàññi ngir ngir nga bañ maa déggal wërsëg ma la joxoon it duma ko dog dama gore gis nga tubaab yi xam-xam bii ñu am yàllaa leen ko joxoon mais à condition ñu topp ko ñu mën xam-xam bi trahir ko mu gore ba kook ñoom di leen xaari bés pénc li kulli nabain mustaqar ma soo fa taalamoon waaw waaw képp ku du mooy alxuraan ji def sama santaane nga du mooyu ko mbaa nga feneen tël ko danaa ko bàyyi mu dund dund bu naqari du ma jël li ma ko joxoon waaye dinaa ko seere ba du ko jëriñoo gaa yi ma jox leen exemple bi ju leer sa cent millions ca banque ba loolu la doom te su turay du ëpp ñeenti mètre sa turki du ma dix mètres ci palaat ngay añ